xamal na ma ne ma dañ bëgg a organiser benn fête fii ci kër gi comme ça sax dinañu permettre ñun ñëpp ñu booloo waat nekk benn. c'est vrai bon ñu ngi may wax lu mel noonu léegi sama tantaasu ak Ndeye Ndiaye nee na waxtaan nañu ak yéen di ngeen ma rendre compte ren daal da ngeen a ne ci ay ambition def réveillon en famille hmm. si yéegal ngeen niveau de léegi nu ngeen koy defee. waa léegi man ak kii xadi amoon nañ luñ jot a dajale ak waa kër gi léegi dañoo bëgg nga dimbali ñu pour buñ ko boolee mu gën a neex. nga def <laughs> nga dimbali ñu. yow yaay taaw kay. bi ñuy def faaw nga bokk ci. bon ça me fait plaisir lu ma lu ma neex la famille bi nii dañuy dajalool nekk benn euh, te ni ngeen ni leen jiitalee aussi ci loolu dama neex. parce que kër gi ñun ñoo fi xale xëy na maay seen mag mais ñun ñooy xale ci kër gi donc ça fait plaisir ñu war a dajaloo doon benn fêter vraiment le réveillon en famille parce que nag sam mooy suñu kilifa amuñu lu ko sut amuñu lu ko gën suñu yaay yi aussi lu ñu am nañ leen ci jàppale juste que rek bu leen ci sonn. di jagale seen xaalis di ko ci def fête bi jàll ngeen naan ma yoru leen weccit naa leen dépanner day compliqué tey leen seen xaalis man en fait li ma ci mënti naa ko def ñu def ko affaire bu soft ba di jël ay affaire yu rëy di ko fi def après fête yi ñu am ay problème mais moom man dinaa je dinaa joxe lu consistant seen loxo laa koy teg ngeen xool ak mairie lu ngeen def ñu def ko rek affaire bu yam mais l'essentiel ñu feete ko. en tout bëgg nañ nga jox ñu bu doy aussi. te nag ngoon gi man ak aw dañoo bëgg a génn dañuy jox argent de poche mais xaalis yi bu mu bokk de nañ koy séparer. xaalis bi dem di fer bi ak li dem. déedéet du benn du benn. man de bu loolu yëpp weesoo sax bëggoon naa nga bal ma àkk parce que keroog fii nga toog fa laa toog xaddi ma moom ñu waxtaan ndax li ma yaakaaroon ak li am du benn xëy na nag. nettali sax day indi histoire kon jarul may wax li xew yëpp ma bëggoon rek nga baal ma bu baax. Euh, awa li ma jàppee xel mi daal la jàppe yow du ñu doomu baay ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yow sama rakk nga kenn warul dugg sama diggante ak yow te man loolu aussi du ko nangu li nga wax keroog nag jàppee wu ma la dara je sais que dañ la encensé rek duggal la ci ay détails. d'accord loolu fàtte naa ko defi keroog fii dañoo nekk ci instance su fête on va faire la fête ensemble mais pour affaire u génn bi parce que da ngeen ma bëgg a tëggalee njaanaan ma après dañuy génn parce que tàggoowu leen déjà loolu dinaa ko vérifier mais après moom ñu leen gis. da ngeen xaalis bi ngay bañ a génne. <laughs> yéen itam leen far yu ngeen di financer sax. <laughs> naa ni meloo gi génnee sa jikko ma dem abal la ma ba yow nit nga wala yow. ba yow lu tax nga yow ma ba ba ma man daal man daal. lan laa defati lan la encore. wuy ma. xam lan laa wax asoo ngi wax ak yow ngay léeb léeb mel ni kuy riij ba jëkk ah, mais koy sàcc day yoot dafay sàcc rek xam nga dañuy sàcc moo tax bu ma dëgër lañ dëgër mu jëli dangay am sa la dama ne nga am sa fula wana ne yaw autorité nga ci kër gi ma waxee ma ne ko man damaa jiite kon damay dem jàngi waaw man du loolu laa loolu laa moom waaw léegi nag yaay am sa fula am sa mat ndax lii nii kenn du ma ko yàqal de ba xam nga sama anniversaire bi sama fii laa ko teg moo baa bàyyi sëy bi du dara ci man nga ndax sama yaakaar ma classé la dem ñibbi suñu kër loué sama appartement toog fa man di farantu xam nga ma farantu kon fonkal anniversaire bi day respecté dil bi organisé ko. mais bàyyi yooyu ngay wax yooyu yooyu nu ko di xool di ko wax. ah dama lay wax rek wala da ngaa bëgg ma commencé léegi wooy léegi a góoma benn yoon. déet déet ma nekk bu ma ay seen dugal bàyyi ko foofu dugg sax ma di xool pour ëndati fi coow. waaw léegi yow. Ah. xew mi lan nga bëgg a sol lan nga def classe programme. ma ko kenn du nga sama trois morceaux bi ma ñëw bu bees bi solo guma ko trois morceaux bi solo guma ko. waaw ah. coppite bu yu doy waar yi génn léegi boo ne carré laay def marakis marocain eh, su ko defee nag nga def marinière defal marinière am na daal yu kawe yooyu sul temps yi rafet na. Ah. musóor musóor gu baax. ba bu ma comprendre bolok nga naan sol. non grand boobu waaw ngay mel ni ku ne mbeeraayu Jalle eh, kii eh, Fatou Mbaye. waaw. ni ku ne. rafetul. wuy ma man du ma damay samay morom laa fay fekk. Getzner la. so man la Getzner rek euh, Mbazin laa jéemale li ngay sol du lool de. lu may sol waaw après la loolu après surprise la. lu may sol lu am classe. fii dañ ko war a dëpp. da ngaa bëgg ma delluwaat ci zone si bisu karawaat. wutal sa benn bu ndaw def ci ay bagages ne dossier daayira bu ñu jégee raay bi ci wagon yàqu yi solo. bu ñu nee damay luye hôtel si après ñun muñ boo demee ne daayira bi dafa guddee eh, ñu fanaan. ay eh, fanaan moo ay moo aaye nañ def anniversaire bi rek après ñëw moo aaye de. mais sàcc day mat. de. da ngay sàcc fanaan gis naan ba kuy dee ci àll na la gay na rek. kii day xëy jël oto léegi dibal teewoon de sañ na ko. bàyyi noonu rek ah baax na yow loolu nga gis. bàyyi na man moom dèjà sama eh, kii nuisette di faa ma dem jëndi ko ak ah, yow yow est-ce que solo li nga war a sol ci année bi temps yaa ngi solo rek solo li nga sol ah, sax man temps sama yaay moo may yónni ay yére ma da ngay sëy damay jàpp ci sëy bi rafet na de mi ngi noonu de mi ngi ma may ko ci géy waaw ci njëkk yi moom xam xaw ma leen a respecté xam nga yow li lay woon ni sa anniversaire bi ñor seen ñaata at bu ñaata la waram musuma ko defar anniversaire astu vingt cinq ans de ma xaw ma vingt sept ans. ba xam nga moo gën a doon naxal. xoolal kenn waxalewu xadi baaba moom dama koo tege ne moom xalaatu yooyu moom tërële di marché bi yor xaalisam fas la gi yaa ngi dégg mhm. kon nag yow. man maa la xamal yu baax yooyu <laughs> man maa la xamal yu baax yooyu te bisu anniversaire bi baax di nga am ay surprise yu bari. li ma la nar a defal ci anniversaire bi noppi loo ma pare. non ma karawaat rek. def say bul ma luqi <laughs> yóbbu nga ma fu ma man laay laay la laa eh, kër gi nag moom des fois kenn prox noonu di déglu di moomatul eh, sécurité xanaa kenn dégguñu mais kenn duñu xamal dara hmm? lii moom dañ koy dëgg nànk ñëw toog te kër gi du kenn du sib du ma ko dugalee sati du ma ko dugal eh, du ma ko sati mu naan mu naan réveillon en famille lang noonu ba ko foofu ba ko yow daal boobaa may yow daal wala boobaa may leen xoolal deles bu <laughs> waaye baax ñoom xadi baax rek naa tey <coughs> suñu waxtaan neex na de. waaw bi na li nga si bëri na de loolu mel ni ku demoon marché. loolu nga may li nga takk rafet. affaire banditisme la. xam nga ku nekk yow foog mu bandi. ma je comme les poissons braisés les viandes hachées. <laughs> mais maam Kumba moo fële si tey. maam Kumba. mu la defal. xoolal dina am xoolal lii. oh dina ma xoolal li ma defal. lii du mooy Veyde. Veyde ma. lii Veyde gis nga gaañul sax. ah bien sûr. Ah. li nga xam sama tànn biir ji moom laay sol. eh. <laughs> xam nga sama man ko mooy te mu dëkk Wakaam. parce que xam nga man lu ma bëgg. gis nga sama mariage man sama wàllu bopp. des fois nit solu ñëw di jéem a xool li borom xew bi sol ñu sol ko humiliation la. mais ku fi def loolu sama xew sa buntu kër laay ñëw suul fa miin. ñaw. li nga fay sol yow la yaa ko fay ku nuróo la naa ko fekk fi mu toog ne ko jugal kaay dama nga ñibbi loolu leer na wala leerul. mais Biram je t'aime beaucoup. <laughs> moi aussi. ndeysaan ma jógee dem bi tey xool na ma jënd. ah vite fait. ah, ah nii rafet na <laughs> la. ah waaw. ko mbëdde. liggéey la xam ak teral ndeyam. ndeysaan. lii dama koy denc ba tànn biir incha allahu rabbi moom laay sol fii def sama maquillage bu saf sàpp di def tànn bi oh. xam nga daam seen ñëw na eh, ah. ñëw na eh, eh. arrivé yaa ngi commencé compliqué de. na de xëyaat ma caama ngay foor ay ah, ñëw ok dëkk bi yëngu na ndeysaan noonu daal mhm. la neex daj bi na salaamaaleykum waaleykum salaam ah sonam na nga patron. na ngeen def ça va très bien. <laughs> yow ah surga mu jógee tool sa loxo yi moom rek. Euh. mon amour. <laughs> lu ma la waxoon ne woon bu ma demaa ngi dem te maa ngi ñëw te bu ma dikkee nga kontaan nga bég. sërëm na nga def. bàyyi nga am jàmm. alhamdulilah Guèye nga def coono yi. alhamdulilah Guèye nga def liggéey bi. alhamdulilah nga am jàmm ba. yow xam nga mu ne ci kon bi dafa dëkk fii nii. Bambey laa jugee ñëw fi. ah Bambey nga jugee ñëw waaw ah, moo tax kee naka laa xool bëñ yi xaw a kii ma xam ne kii moom moom doonte Kaolack wala Diourbel wala Touba wala Bambey rek la kay. <laughs> tubaarkàlla café gi la <laughs> café gi def ni seen bëñ yi café café gi def ni kii yi tubaarkàlla xam nga ndox mi yéen seenu ndox ndox mi ni mu mel te ndox ma noonu la barkelee nag lii leen ci naan lii leen ci leen di pikiru bu leen def dara yéen daal di leen laal ci ndox mi rek ak di naan ci café Serigne Bamba <laughs> kii nag day sama kii tubaarkàlla comme yow yaa yaa yàlla saxala ci yemale mais ni ngay waxee nag xoolal fexeel fexeel xam nga nit tubaarkàlla fi nga nekk temps la góor day góore góor boo waxee danoo war a xam ni góor a wax bu jëfee ñu xam ni góor a jëf waaye léeg-léeg di leen tubaarkàlla baat di ko neexalit am na solo xam nga man nii la rek mais man dam jàngkat laa woon man jàngkat mag tant yu bari tantal na ma ko bu ma daan yuuxu bu ma nee der haa ba dugg bu ma daanuy jëli man maanaam eh, li ma tax a bàyyi jàng waa koñ bi ñoo cotisé koñ bi ñoo cotisé fekk ma sama kër jox ma enveloppe bu duun ma ni waa lii lan la ma xool ko muy ñetti million mm-hmm. ne ma duma bëgg nga bàyyi jàng man leen lu tax ci tant laa toog bi ma nee der waa ji bi mu ne bëgg a yëg daa benn meer buy jaay beñe ci wet ga ca poolu diw ba diw ga saas waa ji samp booba ca biir ca biir diw ba nu rabe ko noonu la gaañu sur le coup na ma nag man nag comme maa ngi jàng nit ñi di dee il est temps kon man ma bàyyi jàng looloo waral kuñ gi cotier ma bàyyi jàng mhm. mais baat day neex góor dëgg day góori mais baatit day neex fexeel boo dee añati ceebu jën ci xooñ ji jee ci paccal limon xooñ boo dee li soo xooñ ah xóoñ boo utiliser xóoñ lu bari jël limon ji chef ko ci ba mu tooy goût boobu mu lay jox c'est ralenti la corps vocal non kii nag day sama jigéen te yàllaa la ci yemale te yow dama laa gis rek bëgg la yàllaa la ci yemale moom suñuy procès danoo waxtaan man ak moom xam nga nun ay mag la moom te nun mag suñuy mbir dañuy ñëw rek jaar ko ci digg bi nun du ne di raay raayal di copp coppal ni comme ni ngeen di wax dégg nga comme ni ngeen di wax nii ñëw naan ay bon fiis nangam naa mu naan la may ma temps ma wax naan sama njëgënaay la nun duñ def loolu man damay agsi na ko di ci buntu kër gi la tase ma ne ko wiir dama laa nopp mu ne ma maa ma ma ko je t'accolade mu ne ma mu ne ma je bi ñu defantee noonu ma ne ko nag dem naa maa te bu ma demee bu ma dikkee incha allah bu may agsi nag farata laaj indi damay ñëw nga wax ma say wayjur ma waxtaan ak ñoom bu ko defee ma daal di takk yóbbu la sama kër ndax nag teem bii ci boppam moo naqaree teg bët. xoolal des émotions c' est l' émotion qui l' émotion l' émotion non xam nga nit boo ko ah, bëggee. Ah, ah. nit boo ko bëggee. pour nga jege ko sax di wax du baax. ndax li may wax nii. loolu na sama kàllaama. kàllaama gi moo dugg ci xol bi moo koy jooyloo. du ma garaaw. piis bëri ma garaaw man kàllaama gi moo koy bëgg a rey fi nga ñëwee dafa baax parce que looloo ko bett looloo waral muy jooy du looloo ko bett mbëggeelu mag la looloo ko bett noonu la noonu la looloo ko bett parce que fi nga wuy ma mbir mi teg ko sama loxo mbir yow gis nga man yi laa bëgg man yi laa bëgg yu dëgër yi yow sa wàllu bopp takk ji teg ko sama loxo maa koy gérer maa koy gérer takk gi teg naa ko merci ok maçon la moom loxo bi gën a wow kon loxo bii de léegi li ma lay wax daal mooy xool naa ba xool euh, xam naa ne jëkkëru njëkkante nga <laughs> wax dëgg yàlla toppatoo nga ñu woddu nga ñu xiifuñu maruñu man boog ñeew ma sama benn moroom te lu mu bëggaan lu ne wax dëgg yàlla yaa ngi ci dox di ci daw ba ma am ko macha allah waaw ba tax na daal waxtaan ak sama rakk waaw Kiné ok waaw fi mu ne daal woote nañu jàmm ndax moom ndax suñu jàmm mooy sa jàmm yow te gis nga fan yi kër gi nu mu yëngoo te yow boo amuloo naqari ñun dañ koy am ndax ñun yow yaa ñu indi ci kër gi kon dañoo war a dab sa bànneex ngay kontaan ñuy kontaan ñëpp di kontaan macha allah waaw fi nga daal moom dinañ am jàmm moom ndax ko kontaan ci yow te nag yow xam nga ni yow dangaa sori ci man coow lee fi nekk nii rek may def samay fi dof waaye yow xam nga ni man dama laa bëgg <laughs> yow xam nga ni yow fi nga toll ci man kenn du la ko wax ndax max yow xamante nañu hmm. yëfu dof yi nga war a bàyyi def yëfu nit bàyyi naa ko je te connais je te connais je naturel il revient au galop moom la tubaab di wax te loolu dalaa xaw a dal des fois sa xol da nga ciy bëgg a def lu rafet dem wax ko def ko amoon benn problème parce que des fois mën nga soumettre sax nangu say erreur mais da ngay ba ci biir rek changer ko sa jàmm moo dul yàgg. ay. Ah, dañuy waxtaan rek man ak um, su ma la bëggul woon ba tey tàggoo nañ mm-hmm. li xew fan yi position bi nga ci jël pare woon naa pour dogoo ak yow te xam naa ne bis bu may dogoo ak yow duma ko def. parce que dama la bëggatu dama koy def parce que damay sës umu du jël mukki na di ko teg sa kaw du jël jigéen teg ko sa kaw yaay sama aawo yow laa njëkk am ci jabar loolu du dañ kenn mënut loolu kenn mënutu ko dindi c'est une tâche indélébile yàlla dogal ni yow yaay jigéen ji ma njëkk a xam léegi lan la honneur boobu privilège boobu yàlla may la ko ci man yow mënoo fex ba duma nekk jëkkër ji nga njëkk xam ci kaw suuf. dëgg la lan la. looy daw bay daan luy fiir li nga mel nag yow ak ki ne jàppante leen doon benn. bu ah. ngeen ko defee def lu ma neex d'accord. dëgg la loolu moom tey nag <laughs> cadeau bi ma la wutal tey. cadeau surprise amul wax. Ah, tu sais que je déteste les surprises je déteste les <laughs> surprises. je surprise bi ma la wutal tey fi ma ko wutee sax nag moo sori. yii non. voilà loolu ma loolu ma ko bëgg wala. <laughs> surprise laa la wax. waaw mu ma ci wax tuuti nag. surprise surprise nag daa jeexal wax wax dëgg yàlla. en tout cas daal ni nga ko jàppoo ni kontaan naa ci man xam nga man man en fait sérieusement parlant yaay sama aawo Kiné man dama la bëgg xam nga Kiné boo demee bu jënd cadeau ñoo war ma ko jox ça fait plaisir. yow eh, eh, daal mën nga ni suñ nekkee ci suñu jàmm rek nga wut leneen lu ko yàq soo paree diñ ma ko du yaa ngi nii naan léegi sama jàmm du yàgg avec ça nan la sama jàmm di yàggee. sànq moo tax dama juum. excuse-moi umu foo jëm umu kado bi nag ki ne umu mais ki ne moom it lan tax est-ce que amul lu ma dox ma naan ah madame Thiel man maa ngi nii di ñëw foofu umu umu xam nga maa ngi Dame. Euh, dafa am lu ma bëgg a wax ak yow. sa nga kër gi yow vraiment gëm naan yaay sama xarit keroog am na lu ñu waxtaanee woon. Mhm. il faut que nga comprendre bu sa jëkkër il faut nga comprendre ko papaam mi ngi ci kër yor quatre femmes hmm? yor na quatre femmes yi di leen gérer waxuma la ak boobu nga xam ne au moins moom mi ngi liggéey. mi ngi tës tës yi mu ngi dem di ñëw di dugal ci kër gi yow nag yaa ko war a jàppale ni nga ko war a jàppale mooy hmm, nekkal ak moom nekkal ak sa rakk ji du ma wax dama naan sa rakk yow ndax rakk kookoo waxoon naa la ko keroog mais j'ai vu que boobu ba léegi gisuma changement yooyu ci yow papa Thiam nag da la demandé loolu ngir ah nga def ak rakk di waxtaan ak moom su nekkul ci tëgg ah nga indiwaat ko parce que nag loolu mooy sa war fi mu toll nii. Papa Thiam dégg naa li nga wax keroog tamit ma ko waxee man maa ngi ci woon de maa ngi ci dara yow nag li ngay nekk ci kër gi moo bëriwul mais man ak Fatou Kiné ñu ngi ci parce que woo naa ko ci sama salon ñu toog waxtaan ba jàmmoo waaye tamit bu mi nga xam ne moom moo ñu indi ci kër gi moom moo ñu waroon bokk ilif moo warul na jiitu ma topp ci Fatou Kiné ñëw moo ñu war a jox le bon exemple mais bu moom ci jëmmam moom mooy jeng. waaw ah oui comment ça. waaw moom mooy jeng di def ay affaire am ci suuf di ma nëbb ak di ma làqat sànq rek laay waxtaan ak moom ci saal bi ma wax wax neexal wàcc tey ma aye bëgg defar sama ay ba mu neex jëndal ko ay kaddu defal ko ay surprise di wax ak moom mu naan ma ay Kiné di wax ak man 30 minutes naan ma Kiné Kiné Kiné. man mii nga xam ne maa ngi fi un an et quelque bu war naa fàtte sama tur may wax mu may tuddee Kine. Euh, Oumou là moom je suis pas d' accord ah. ah non je ne suis pas d' avec Bou te dinaa ko ko wax parce que nag sa gos là aussi day déborder lu tax mu naan la Kine. moo ma jaaxal ah yow nga tudd. Ah. Ah, jeng dafa baaxul borom kër warul te jeng ça c' pas normal tegu ko fenn ah tegu ko fenn de lii nag dinaa ko wax ça c' quoi. boo ci waxul de moom yéen a nii su ma defee ngeen ne ma umu umu te moom yi muy def yéen kenn du ko gis. man lii moo tax bugguma sax takk jabar. Ah, na waar parce que ces problème là yi am ci biir kër gi ah vraiment duma ko tegoo man wala waxuma laa ma ko tegoo sama jabar. Hmm. ba tax na ba man buggutuma takk kenn si àdduna waaw waxuma laa buur da vraiment ces choses laa ki buur di def. Ah. et puis si nga l'autre jour ah, dama dem Kajoor Glace seen ko maa ko gis en filature ba mu ko gis sa damaa nëbëtu. maa ngi ànd ak benn gel jënd benn euh, glace mille 1000 francs ñun ñaar ñu bokk ko gis nga bu xam ka laa dal kii ne la àndal. ban bu. jënd glace su mille francs la jënd gàdd ko ñoom ñaar ñu koy lekk bàyyi la si biir kër gi mais ça c'est pas normal bu loolu tegu ko fenn gis nga affaire papam yooyu mi def loolu la war a bàyyi bu gis nga fi mu toll nii doon na bàyyam ça c'est pas bien soo mënul yor ñaari jabar da koy bàyyi soo mënul yor ñaari jabar facile kenn ki nga nga góor nga xam ne su ma ko waxaan kaañu génn sax mu naan ay bu timis passé ay moom bugul dox bu dëgg affaire yooyu moom moo jël ki ne ànd ak moom Kajoor Glace. dama ni moo ko def te gis nga dinaa ko wax nag dinaa ko wax ah ce comportement là man du si ànd ak moom te gis nga sa gos la billaay su mooy tuul gi jabet moo ko yor gis nga biiram bu ngadd boobu kii est-ce que jabetul ba pare sax sama benn heureusement dama ko doon fekk foofu mais sama benn copain moom mu téye ni ma non bul dem. ma ko non kii sama fils kii kii dama bañ mu deewaayaw kii il est presque mort regarde-moi ma ànd ak deuxième bi di ngand ngandalu xool ak biiram bu rëy bi regarde-moi ces choses là ah et puis yow xoolal yow daal bàyyi ko man rek man lii dinaa ko régler bul ko wax dara bàyyi ko man. xam kon bu la def. dama bu loolu la def. waaw du ma la ko nëbb nag loolu la def regarde-moi ça une jeune fii comme sa nga bàyyi ko takk ko même pa euh, même pas quatre ans ou cinq ans bàyyi ko wut dem di doxantoog benn benn sa femme boo xam même pas deux mois nga ko bàyyi cette fille daal ndeysaan mu ne ci biir kër gi di di kii ndeysaan wéet nag oh mais j'ai j'ai pitié de Oumou vraiment cette fille là j'ai pitié d'elle sama xarit la quoi vraiment sama xarit la vraiment eh, cette kiné là et puis day wone deux visages elle avait raison deux visages lay wone wan na ma deuxième visage bi nag man aussi dinaa ko woon sama visage man vrai visage yu caam kiné dina ko gis voilà bàyyi ko man rek Moi, je m'occupe de mon héritage là. xoolal mais ça c'est du n'importe quoi ça non. waaye xaaral ma jóg sax dem.